ñu nekkee ay tànk lañ fi nekk ba tey am ñoo xam ne suñu juddoo fii lañ gën a am xamuñu dund fii fii moo ñu gën moo ñu jëlee war a mel incha allah bi loolu la ñuy lépp jaar ci yoon waaw euh, gestion daal gestion bu baax a baax lañ soxla soxla incha allah a baax a baax euh, yàgg ko siibut xam nañ ne déggu la am na am na loolu de réew loolu koy yor dëggub jub rek moo yor moo yor incha allah rabbi loolu mi ngi fi Pape Djibril Fall ñu gars yi ñi pour wax naa leen leen man damay sawar ci dalal ku mel ni Pape Djibril Fall parce que am am ci moom yaakaar la Sénégal yëpp am ci moom yaakaar ñu koy ñaanal Badou micro bi ma yoroon tax fexe ba góorgóorlu seen benn somme bu ñu def dara lu dul wut cinq xar wala sept xar boo xam ne day nekk xar yu ndaw ba yor ko pendant neuf mois di ko xool di ko dundal ba tabaski bu mën ko jaay amaat ci dara ba tabaski passé loolu ngay commencé waat amoo ku la si biir am non ñun moom wax dëgg yàlla bu dee wax rek yàlla tax ñun ñu toog nekk ay jeunes benn signal benn suñu amatuñu ay kër amatuñu benn benn bois lañ ko am parce que jigéen ñoo da ngeen am problème pour am accès ci marché territoire bi yëpp dafa gis sa bopp amuñ fi ndox boo xam ne xarit bi leen wàcce aussi dañu am ndox bu ñu naan ñun daal soxla soxla nañ daal ñu jàpp jeunesse bi fi ay jàmbaar lañ mais amuñu benn soutien boo xam ne daal am nañ ci am na yaakaar am nañ am nañ yaakaar ci yow. policier municipal benn policier nekk ci dara. benn policier du du policier sax ASP. ASP naka moo fi nekk. ak ay ñaari bonne volonté yoo xam ne demuñu ànd duñ dara ñu leen ak. yéen ci xayma bu bu gën a jàpp ñaata nit a fi yëngu par bés. fii kenn mënu ko compter. kenn mënu ko compter li fi nekk kenn mënu ko compter. ñoo xam ne. c'est six heures heure dañuy wax. à partir am ñoo xam ne à partir de une heure la ñuy gontu ba vingt heures ñu wàcc parce que bu ñu leen doon wax ku ne plus de ba pare gis ni ko gisee lépp a taxaw am nga am nañu problème mu financement am nañu problème mu yoon suñu jur am nañu problème li ñu leen jox ñu lekk am nañu problème ndox ñun ñun ñoo volontaire woon ñun doomu marché bi presque boo gisee fii ñun mën fi ñëw ba ñun ñun ñoo doon xeex ak affaire yi ñoo fi jël lépp amul soutien wu ren ñun suñu bopp ñoo fi fexal fii ba mu xam nga li fi nekkoon mais boo fi ñëwoon ba une heure du matin teg fi say bagage kenn du ko laal ñun ñoo volontaire jël loolu volontairement bu ko ne yow bu la yàlla indee fii fii la bàyyi incha xamante ni fi lañ leen fekk ñuy daan seen doole pour sàmm seen ngor ak seen diine ñu fekk fa tamit ñoo xamante ni mbégte lañ ci am ndax suñuy morom lañ fa fekk mooy ay ndaw ñoo xamante ni tey ñoom ñoo nekk fii waaye ñun mënoon nañ fi nekk te ñoom ñoom nekk bi ñu nekk fii seen nekkin boobu daf ñu yitteel moo tax tey jii ñu dox ba ñëw pour bokk ak ñoom jotaay bii nga xamante ni jotaay bu am solo lay doon muy jotaay déglu beneen bi it muy gën a xam li nga xamante ni ñoo ngi koy dund teñ xamoon ko ndax suñuy ndaw ñëw nañ fi plusieurs fois ñun tamit ñu xam li nga xamante ni moom moo fi nekk mu am nag problème yu bari yoo xamante ni benn borom xam day wax ne dëkk boo dem soo bëggee xam nu dëkk ba nekkee nañu yore dëkk ba mu a njëkkal ca marché kon tey jii ku ñëw Seras di nga xam ne Sénégal kenn yoru ko nga xam ne Sénégal taxaw wuñ ko ci wàllu cet ndax gis nga leen li fi jot am ci wàllu cet ba ci toilette ba ci yi nga xamante ni moom la doomu aadama gën a mën a soxla pour suturlu ñoom ñoo ko defaral seen bopp état defaru ko beneen bi mooy ci wàllu sécurité nee nañ waxuma la as poste de police moo fi nekk ngeen gis ko nii te benn ASP moom moo fa nekk koo xamante ni waajaluñ ko sax tàggatuñ ko sax ngir mu gérer la sécurité

fekk fi entrepreneur yoo xamante ni tey ni ñuy jëlee koppar gi nga xamante ni moom lañ leen war a ñëw fekk fii dimbali leen ko duñu ko def waaye dañuy dem jël ko ay politiciens ay jeunes politiciens jox leen ko daal di bàyyi ñi nga xamante ni ñoom ñooy xëy di ñàkk ni daan doole pour loolu nag dafay wane ñàkk gi ñu ñàkk sàmm alalu réew mi. li fi am as teew jaxat-jaxatee nañ ko sàggane nañ ko ba nga xamante ni loolu dafa tax tey réew mi gisul boppam ci li nga xamante ni moom mooy ni ñu yore fas yéene koo soppi jële ko ci loxo yi ñi nga xamante ni juróom benn fukki at ak ñeent yi ñoom ñoo ko yor te ñii tey bokk ci ñi nga xamante ni ñoom bu ñu waxee da ngay xam ne réew mi taxawuñ ko boo jëlee tey ji ci wàllu élevage maanaam wàllu càmm tey ak yor ay jur fii boo fi ñëwee tey dangay xam ne ñoom ci seen bopp xam nañ ne niñ leen waroon a taxawoo taxawuñ leen ko ndax kat juróom-benn fukki at ak ñeent yi réewum Sénégal lompoñ na ci bu tabaski jotee wara a korite jot su réew yi ñu wër bu ñu tijjiwul seen i bunt ñii li ñu soxla dëgg duñu ko am ñoom ñi nekk ci yar la nga xamante ni moom lañu ajowoo ngir mën a yar ngir mën a jaay ngir mën a taxawu seen bopp amuñu ko beneen bi it mooy gis ngeen marché bi tey mu mel te tey jii boo demee ci tukki ci àdduna bi nga dem feneen ci marché yu mel nii yu méngoo ak marché bii ma nekk tey loo fa soxla mën nga ko fa am ba ci say espace de travail ba mu mucc ayib boucherie yi fa am mucc ayib te tey jii bu ñu ñëwee fii xam ne li ñu fa fekk baax naa wone ñu xam ne réew mi yoruñu ko ñu xam ne réew mi gàcce gu mag moom moo ñu dal te ñun ndaw ñi nga xamante ni dañoo jóg fekk fi suñuy moroomu ndaw jóg ngir soppi mbir yi faaw ñu gën a dëgëralaat suñu taxawaay jox leen tamit li nga xamante ni moom mooy la mag ñëpp daan jox seen gor yi gor kaddu muy kaddu kàddu lañ leen di jox ne bés bu ñu dénkee réew mi wóoluñu ci 24 mars 2024 lii ñun ñoo koy saafara bu neexee suñu borom subhaanahu wa taala ñoo ngi ci bëgg ñoo ngi ci bëgg ñoo ngi ci bëgg ndimbalu ñëpp ñëpp gunge ñu ci xam ne caaxaan jeex na ci Sénégal dafa war a jeex tappale dafa war a jeex ci Sénégal te xàmmee nañ ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw di jëfandikoo askan wi ak ñi nga xamante ni ñooy ñëw di jëfandikoo alalu askan wi kon ñun dañoo jóg ngir ne bëggatuñu ci politique kenn di jëfandikoo askan wi ngir boo amee li nga bëgg bàyyi leen bëggatuñu tamit kenn du jëfandikoo alalu askan wi di ko pasar pasare ngir régler seen problème bàyyi nit ñi ak seen problème loolu moo ñu yëkkati ci loolu la ñuy dox daray tappale amu ci daray waxe bakkan amu ci daray waxe bànneex amu ci ci dëgg lañ ko teg dëgg joo xamante ni dëgg ju wér la fas yéene ci liggéeyal suñu borom taxawu askan wi ba soppi mbir yi te loolu jàpp nañ ma mën nañ naa mën naa nekk ñoom ñoo leen di gërëm baax